auzu billah min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi noo ngi leen di nuyu di leen siyaare noo ngi ci ñeent fukkeelu jataay ak ñaar ci téereb Xalimag leer noo ngi woon ci biir xasida ak wala xadd karam naa bani aadam ci xasida googu seetlu nanu ci ne Sëriñ Tuubaa mi ngi ci tudd aj màkk gi nga xam ne bëggoon na ko te mu amee gàllankoor ci at moom nga xam ne ci la ko bëggee woon at moomu nag mooy at mi nga xam ne ci la jóge Touba dem Mbàkke Baari muy 1895 sëriñ Modou Lamine Diop wax na ne am na ko sëriñ bi newoon demal nga wàcc nu ànd dem aj màkk ba kooku dem waa ji waaye daa dikk rek fekk xew-xew bi tàmbali ci diggante sëriñ bi ak tubaab bi kon atum gàllankoor mii muy wax ne ci lañ ko gàllankoor ci aj mënees na ko jàppe muy at moomu ba tey sëriñ baa ngi feddali ci xaside gi ak wommatoom ngir doon jaamu yàlla rek doon it liggéeykatu yonante bi salallaahu alayhi wa sallam ba mujj sax mel ne kaabu ak xasaan nu saabit ci tàgg yonante bi salallaahu alayhi wa sallam bokk na ci chant yi mu indi ci xaside gi pajog aajo gi ko yàlla defal ba tax fu mu toll di liggéeyal yonante bi salallaahu alayhi wa sallam te mbégte yi bi salallaahu moo ko fàtteloo mbooleem lor lor yi noonu jëme woon ci moom mi ngi ciy waxit anam gi muy liggéeyale yonente bi salallaahu alayhi wa sallam anam gi mooy way ak wesar bu dee way mën nañu cee misaal xasida ku mel ne jaalibatu maraaxib bu dee wesar mën nañu cee misaal lu mel ne muqaddimatul xidma ndax bu ci ne da ciy liggéeyal yonent bi salallaahu alayhi wa bii way la bi ci des wesar la am na it baat boo xam ne sëriñ bi indi na ko ci xasida gi lu mat juróom-benn yoon muy baatu am si am si démb lay firi moom am si démb lay firi lu mel ne wax gi wax ne yàlla démb nga ma yee wala mu naan démb nga ma jàppandalal wala mu naan démb nga ma teral ak wax yi ak mboolem wax yi ko niru te am baatu démb loolu nag li ñu ci mën a déggee mooy baatu démb saa su ñu ko waxee la weesu lay firi bu ko Sëriñ waa waxee nag dees na yóbbu déggin wi ci anam gu gën a dëppook tasawuf méngalikoogu it yeneen waxam ngir mën a dégg e, dégg gu mën a gën a dëppook e, baat boobu maanaam daal bu ñu waxee démb rek Euh, ci nun mooy lu weesu waaye sëriñ bi nag bu waxee démb mel na ne am na lum ci junju ci diggeem ak boroomam ndax bu nu xoolee xasida gu mel ne euh, xaatimatu munaajaat yi mi ngi ci wax ne sunu boroom mi nga xam ne dama nekkal ci ay tedd nga akuk booyal akuk booyal xamal na ma xamal na ma lu jiitu bindu mi defi allama nii kaana qabla al man kaana li bi karimin wa talqi woowu des na ci déggee ne baatu démb bi sëriñ di wax mën naa doon lu jiitu mbindeef yi loolu nag lu yomb yàlla la ndax yàlla ci boppam moom bind na ruuy mbindeef yi lu yàgg door a sàkk sayyidina Aadam kon noo ngi yem foofu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.